sele en presse ba tey ñu leen si defar analyse ah mais nag gars yi yéen gis ngeen paa bi non man moom paa bi damay gaañ quoi Père Mansour non Mansour damay gaañ quoi Mansour moom xamoon ni dañ koy nax de non instant bi gis ngeen nag dafa kontaan dafa kontaan parce que dañ ko wax ni yow sa jabar bi dafa ëmb dafa ëmb te nag euh, paa bi dafa yàggoon a ñaan ah pour amaat beneen doom xam ngeen am na benn doom mais amaat deuxième doom waaw mais nag paa bi moom xamal ba tey nii dañ koy nax soo xool nag mi ngi si kontaan bu métti kontaan bu métti <laughs> mi kontaan kontaan bu métti nag waaw waaw te kontaan bi xamoo ne kontaan bi yëpp yëpp ay nax moo nekk ci ginnaaw waaw ay nax moo nekk si ginnaaw parce que jabaram bi ambul tous ambul non dafa complot ak yaayam waaw yaayam xam ngeen ni dafa bëgg jabar bi ñëwaat si sëy bi moo tax mu ne ko faaw nga ne kooko dama ëmb waaw gis ngeen nag ba mu ko waxee ne dama ëmb ba tey paa bi dafa kontaan waaw di ñaan waaw waaw naan ay waay man sama ñaan bi nangu na nii ak nii non mais paay paay non mais nag moom ah lan mën a xew après bis bu demee ni ba xam ne moom dañ koy nax bu boobaa dina métti si jabaram bi nag waaw parce que paa bi imagine leen yéen ah paa bi dema dema dem ba xam ni moom dañ koy nax ndekete yow jabaram bi mësta ëmb non bu boobaa du yomb du yomb parce que paa bi kontaanam bi xam naa moom bis bu yàqoo moom ah moom moom dina yéeme parce que exemple bi kontaan na trop trop parce que yàggoon na ñaan si àddunaam muy amaat deuxième doom waaw taw exemple foog na ni moom ah amaat na deuxième doom daanaka waaw léegi bu demee ba xam ne dañ koy nax bu boobaa moom mën na mën na see fase jabaram bi mën na ko see fase waaw ndax paa bi affaire yooyu moom du moom moom moom du ko nangu waaw parce que doom moom da koo bëgg te nag def ko yàgg ñaan te nag moom foog woon kenn moo ko koy may ku dul soxnaam si nii waaw te nag bis bu demee ba xam ni soxnaam si daf koy nax ndekete mës ta ëmb non bu boobaa gars yi imaginer ren paa bi bii ak te bi fii ah non sama kër nii ak nii non bu moom du yomb bu boobaa du yomb ta bu boobaa bu boobaa foog naa daf koy fase daf koy fase mu dem yoonam